mbokki internet yi mbokku ngeen li ngeen gis nii benn xeexoo bu am démb fële ci Ribot Escale la xam ngeen ne démb moo nekkoon si journée bi ñoon joxe Madiama Seck di joxe benn ambulance foofu ci Ribot Escale euh, dëkk bu ñuy wax Taïba Cekkeen mais bañ fa jeekoo kii nii ma jàkkaarloo ni mu wàññi ganam ci kanam dinañ ci waxtaan ak moom la ñëw ñibbi dëkkam ba Ribot Escale am ko ñëw wax ko fekk na ko yow da nga doon saaga yaaya jël ay ay ay ay ay paaka jam ko ko gis ngeen ko jam ci digg ginnaaw mu nekk lu doy waar lu ñu ñaawlu lu xam ne war na mën a ñàkk suñu gox bi parce que ku jiitu ku fi jiitu ñëpp benn la ñu bëgg lu leen rek moo tax ñu tourné ba nit ñi gis paak yi xam ne moom lañ la jëm est-ce que ñëwaat ci mbir mi wax ñu nan la demee cérémonie bi sax bi ma demee. Mhm. Euh, chef de euh, médecin chef mi ngi fa yow yaa nga fa. Mhm. mais man yàlla xam ne jëluma kàddu sax. Mhm. après bi ma bi quatre heures jotee laa ñibbi. gaare sama moto di dem ci benn téer mu dajeeg man ni ma père kaa ñu gisee ñu ñu mu téye sama loxo ñuy dox. waaye ko ma laaj benn xaritam boo xam ne ñoo dëkk Fass. ma ne mu toog ba yàgg rek tëb rek jaar si ma gannaaw ni ma yow da ngaa saaga yaay cérémonie bi jàmm ay coup ay ay quatre coups. léegi comme ça noonu mu jëm la ay ay ko may mbir mi mais garaawul noonu la nga ci mën ay ay paaka la jëm quoi. ay paaka la ma jëm. moom kay bu fekkoon ne moom euh, yàllaa dogaloon affaire waaye moom rey la ma doon def. ok waaw léegi léegi la ngeen nar. léegi lu may dem ci yoon loolu ñu yoon may rek ñu xam ne noonu la parce que comme. ñoom daanaka affaire moom day utiliser ne am na mbokk. loolu rek loolu la. moom partenariat yi loolu quoi. mais yéen a bokk même dëkk bi de. commune ñoo bokk benn dëkk bi man mosuma amoon moom problème parce que moom père la may wax sax loolu la man naxee ne ma père kaay ma gis la. Mhm. jàpp sama loxo ñuy dem ba yàgg mu mu pare ma gannaaw ni ma yow da saaga yaaya ci cérémonie bi yaa ngi dem di saaga yaaya rek topp di saaga yaaya saaga ma ba pare jam ok kooku moom tur bi naan la moom ki def loolu waaw Latir la tudd ñu ngi koy wax Ibrahima Ba dëkk Riba Sali ñu wax Latir dañ koy wax Latir Latir Latir yow nga dëkk ci ban dëkk nga dëkk mais am naa en même temps bi yow yaa yàggul rek daaw def na fa ay motif parce que loolu lay def mhm. ba ba comment la jàppoon na ko. am na lu mu ko def parce que day day léeg-léeg day jël drogue di perturber di def lu ko neex. Mhm. aussi kon kon daal mi def nii da nga bëgg naan toog waaw waaw parce que man man gisuma ko pour loolu parce que loolu xam naa naa sagoom ndax dafa ñëw téye ma loxo ni ma père kaa ñu gisee. Mhm. père la ko doon wax ni ma père kaa ñu gisee ñuy dox ba yàgg ma wan ma wan ko gën a am sax pour ay affaire loolu la quoi. Ah, ok bu fekkoon dama sant dafa yor arme. du ma seetaan dafa jëm seetaan seetaan waaw du ma seetaan ñoom la jëm. ok léegi comme ni nga ko waxee rek mbir maa ngi ci yoon. waaw mbir maa ngi da ngeen a bëgg da ngeen a bëgg a bàyyi yoon daf daf liggéey. daf liggéey waaw. ok waaw ah, mbokku Sénégal mbokku ngeen li ngeen gis nii ki ñu jàkkaarloo mooy xew-xew bu ñaaw bi am fële ca Riboscal muy nekk loo xam ne war na mën a ñaaw suñu diggante parce que Madiama ak Yaya Sow boo xoolee ba ci biir amuñ benn problème mais lan moo tax ay nit di créer problème pour indi leneen loo xam ne day jaxasoo. ki taxawal nii moom mooy borom dëkku. Paas Mbaye Paas Mbaye tur bi la. Babacar Mbaye moom lañ def jëf di ñaaw ji noonu jëm ko ñeenti paaka ci gannaaw. yàlla moo ko may jàmm ba euh, mu mucc tey ba mën a taxaw fii ci xibaar Bambouck di wax ak askan bi lan ngay wax seen mbokk ñu xam ne xaw nañoo jaaxle wala ku gis vidéo bi xaw a jaaxle. xam yaa ngi bëgg jëm si liggéey boo xam ne du ba damay bay aussi arrêté na sama liggéey. Mhm. amoo benn pexe. Mhm. waaw ok waaw. mbokk yi lii rek la ñëwoon pour jël leen ko ak Babacar mbay nekk borom dëkk bu kii démb lañ ko jëm euh, face fecc euh, ko ribu escale démb lañ ko jëm ay paaka ñeenti paaka yàlla def ci jàmm mu ngi ni taxaw mais nag ànd nag métit ak coono bu dey xam nga borom kër gu mel nii tey war a liggéey liggéeyam am na mu dund leen njabootam ñuy bett ko daf ko ay paaka nii ngir politique bu xam ne jëmul fenn agul fenn ku ci crois war nañ ko mën a moytu war ko mën a ñaawlu képp kuy autorité bi nekk ci département bi war nga xool lii nii nga hmm. gën sa xalaat ñaaw la ko encore masu coono kii di sëñ Babacar parce que lii defetu département bi la defetu dëkk bi la tu yóddu yoon mu am ci politique politique li ñu ci wax mooy que ne kii mën na jiitu bu ñëpp ànd ak moom ne ko yow la su mandaam jeexee ñu changé ba teg fa keneen sëñ Babacar looy tëjee man présidentielle. 2012 mhm. man ak yaay ñoo ànd. Mhm. ba bañ gagné mu def ma président association. fexe bu ne liggéey naa ko ma jël sama kër participer ko def fa permanence affaire di liggéey ak moom. waaw dernier moment am am nañ ay réew kii néew réeroo wuñ sax mais man dama xool sama bopp gi comme ni ak comme d'habitude ay wax yu bari coow yu bari ma xaw a def sama relation continuer continuer ak Madiama Madiama ñoo bokk réussir gagné mooy kii di maire kii di adjoint maire xanaa loolu moo amul problème man depuis 2012 maa ngi ci affaire li ma liggéey loolu affaire amul. mais gis ma ci sama bopp mujj xaw a wàññi ni continuer sama liggéey. est-ce yëg na li. ah yaa yëg na ko parce que bi biñ ko waxee mu war nañ ko mu ma wax ne ma xaaral ba jeudi ba jeudi ba mu ñëwee ñu arrangé ku ñu jàpp cinq paak xamoo dana dee wala du dee yónneewul automatiquement di ma wax na ma naa xaar ba jeudi. jeudi bu ñëwee pour ñu waxtaan parce que c'est kooku famem la bu wax nañ ko jàpp mais ku ñu jëm paak juróomi paak wala juróom benn automatiquement dafa li tax ma déw def ci yoon bu fekkoon dafa ñëw ci saase wala mu yebal ndaw ci saase man da danaa danaa déglu li mu wax dafa ne ma xaar ba jeudi. Ah, ku njàmpaaga xamoo dana dee wala du dee nga ne na ah? loolu moo tax mu doy waar. ok kon mbokk yi yéen ko dégg Ndoro lii la ñu jëlee nag ak ak ki xam ne moom moo am ñaaw coono ji ak ñeenti paak yu ñu ko jëm foofu ci ribo mucc na mais nag métti na trop comme ni ma ko waxee ci gannaaw. képp ku ci mën a dox tànk jàmm moom mbaa nga def ci loo xam ne kii dañ ko mën a jàppale parce que tamit euh, ba mu nekk war di bay mais tey mënut a def dara parce que am na indisponibilité bi ñaata fan nga war a toog loo xam ne wax ah, fii ba dafa dugg paaka yi dafa dugg ñeenti paaka la chance dëgg la ko yàlla may moo tax tey ñu ak moom di wax ak moom mbokk yi mbir maa ngi noonu yéen ko gisandooroo génn na seen xalaat ñuy wax ci lii nii di ñëw élection ñëwagul am nañ buñ gaaw du jog rek dina ñaaw ëllëg bu dara amee kon mbokk yi jërë ngeen